étudiante yi nga xam ne ñoo nekk ci université Thiès yàlla def am xew-xew bi fi am bërki démb muy xew-xew bu tiis boo xam ne dafa dal suñu njaboot ci Sénégal gépp yëgandoo ko bi mu xewee am loo xam ne ci njaboot la dal ban njaboot la dal mooy université Thiès ku ne université Thiès dafay am œuvre sociale bu fi nekk boo xam ne ñoom ñoo yor lépp loo xam ne mooy toppatoo étudiants yi fi nekk rawatina étudiants yu jigéen yi étudiante yu jigéen bi mooy waaw ci turu kilifa gi muy nga xam ne le directeur du CROUS Cheikh Sall mu am amicale bu ñuy wax affaire CROUS amicale des femmes CROUS Paix muy CROUS Thiès la présidente Adja Khady Faye Ndour mi ngi nii toog ak le secretaire général ci madam fay ak euh, euh, docteur Faye aussi ne ñoom ñi nga xam ne ñoo jiite amicalu Africrous bi xew-xew bi bi mu dalee gis nañ ne euh, Sénégal gépp la metti waaye nag rawatina ñun ñi nga xam ne ñun ñoo nekk ak suñu njaboot ñun ñoo nekk ak yéen ndax étudiante yi étudiants yi li ñuy nekk ci campus social bi newuñ ko ci seen kër yi ñun la ñu nekkal presque pendant neuf mois ñun seen yaay la ñuy gis ñun seen nijaay la ñuy gis kon yaakaar naa ne tis woowu ci ñun la dal kon loolu nag taxawaay boobu amical bi am ñu ne woon ñoom tamit dinañ ñëw waxtaan ak euh, seen doom yi partagé woon lii fi xew ci mettit lépp loo xam ne luñ ci war a wax la ak lu ñu ci war a def euh, le secrétaire général mi ngi nii après dina ñëw fii toog loolu la ñu waxoon ne loolu la ñu ubbee en présence du représentant des étudiantes c'est Sali Kamassa ah Sali ah, Kamisa Fall. waaw Sali Kamisa Fall waaw mu c'est ma Sali Kamisa Fall moom mooy représentante des étudiantes université Crous Thiès kon loolu la ñu ñu wax ko ci asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu di ñaan ki fi jóge yàlla ko yàlla xaraal jàmm. ce samedi 7 mars 2020 un drame s'est abattu sur l'ensemble de la communauté universitaire de Thiès une fille une nièce une sœur. vient d'être froidement poignardé à mort à son domicile. Tel un affront à la jeune féminine en cette veille de la commémoration de la lutte pour les droits des femmes. Une journée qui restera à jamais gravée dans nos mémoires. L'amicale des femmes du Crous de Thiès, l'amicale des femmes de l'école polytechnique de Thiès, ainsi que les étudiantes dénonçons et condamnons fermement cet acte criminel, cet assassinat que rien ne pourrait justifier. Aujourd'hui, nous femmes sommes plus que peinées. Nous sommes en effet blessées et sentons en nous ces coups mortels de cette arme qui a écourté la vie de notre très chère marraine. Son nom est ainsi inscrit sur la liste des victimes, qui sera donc la suivante. dans ce pays où violenter la femme, la tuer, même de la manière la plus vile, est devenu chose banale. Nous, les femmes, lançons un cri de cœur, un appel pour la protection contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes, des enfants et des filles. Nous estimons fortement que ces criminels seront punis à la hauteur de leurs actes. Et d'ailleurs, nous considérons que la seule mesure rassurante qui apaiserait nos douleurs reste indubitablement la peine de mort. Vivement que la peine de mort fasse son retour. Nous prions pour le repos de l'âme de la disparue, Marem Diagne. Nous présentons nos condoléances à la famille éplorée et lui manifestons tout notre soutien. di wax rekk ni ñun lu ñu fi indi c'est surtout deux points d'interrogation c'est-à-dire. Euh, qui la suivante sur cette liste après Aïssata Ka après Yoba Baldé décapité après une longue liste de femme donc ñoo ngi laajte fi mu nekk nii kan mooy suivante bi donc ñun lu ñu fi indi en tant que femme du Crous de Thiès en tant que femme de l'EPT en tant que étudiante ñi nga xamante ni ñun ñoo partagé espace bi lu ñu fi indi moom mooy juste naqarlu naqarlu li fi xew tey wax ni liste bi li mu exhaustive trop tamit bu mu nekk loo xamante ni dañ koy ranger rek euh, aux oubliettes à dire ñoo ngi lim liste bu ñu paree bu subaa ñu lem ko toog di xaar li mu euh, terminer man je pense foofu laay commencé moom mooy que ni am na ñu fi taxaw di défendre les droits c'est vrai ku nit ku nekk am na droit ñu défendre ko les présumés innocents ak les autres mais man damay laajte sama interrogation mooy Mariam Diagne ak doomam bi ñu ko suulaaleen ñooñu kañ moo leen di défendre damay laajte ay Ka ak doomam bi mu bi ñu ko suulaaleen ñooñu kañ moo leen di défendre donc euh, appel la bu ñu lancé aux autorités yi nekk ci euh, dëkk bi que ni lii nii ñun dañoo war a tendre si protégé les couche vulnérables couche vulnérables yi moom mooy ñun jigéen ñi moom mooy xale yi moom mooy suñu doom yi suñu jarbaat yi nekk au sein du campus ñuy évoluer ak ñoom. je m'appelle Sali Je suis étudiante à l'Université de Thiès en langue étrangère appliquée. Nous sommes là aujourd'hui pour bannir certains actes faits à la femme. La femme est un fondement de la société. Pourquoi devrions-nous accepter d'être traités de la sorte Mariam Diagne était une sœur, une femme, une personne qui deviendra un jour maman et qui sera appelée à éduquer des générations et des générations. Pourquoi lui ôter sa vie Pendant ce temps, sa famille avait de l'espoir en elle, une femme qui voulait vraiment devenir une personne indépendante. Cet acte doit être vraiment puni et comme vient de dire la secrétaire générale, nous sommes pour la peine de mort. Je vous remercie. li dal tey ci université de Thiès bi lu tiis la lu ñu métti la ñun ñëpp en tant que étudiante koo xam ne dafa amoon ay rêvam famille wam yaakaar ci moom mu nekk yaay ci ñii sër ci ñële tey jii ñu jël ko ci ay raisons yoo xam ne kenn mënu koo qualifier faat bakkan tout court dafa nekk loo xam ne kenn mënu koo baal yi ñu doonee jigéen nga xam ne tey jii mooy téye suñu réew tey jii après moom après ñu jot a jaar peut-être que sama tour lay nekk suba peut-être keneen ku ma gën a jege donc tey dafa wax ci ku nekk ci ñun ñu jóg ci loolu balaa affaire bi du ñu ëpp loxo ñu ngi ñaan nag ñi nga xam ne ni que ceux qui de droit ñu lijjanti li nga xam ne ni que mooy meurtre suñu xarit suñu camarade ki nga xam ne ñun ak ñoom ñoo bokk lépp parce qu'on passe plus de temps fii ci biir université bi on est déjà une famille ñu lijjanti kaawam si nu mu gën a gaawee